Cheikh Al Hadj xam nga nit nit bala nga koy xam yàlla dalay booleen moom ci ñaar mu jàngal la wala muy sa way jur tarbiya bi muy defat yow ngay dund ak moom ca ngay dem ba xam kii jukko ji mu amee ban jukko la naam mën naa nekk sa baay waaye ci baay gi mu la jur ngay dundat moom ba xam ni kii nii la mel waaye Cheikh Alxaaji Mansour yàlla daa dogal ci moom moom yamul di Cheikh xaaji Malick mooy baayam waaye Cheikh Alxaaji Malick da koo defal lu mu defalul kenn ci njabootam loolu du sama wax waxu Serigne Cheikh si la Serigne Cheikh Tidiane si moo ni alxaaji Mansour Seydou Xaaji Malick defal na ko tarbiya boo xamante ni moom rek la ko yàlla defal ci Seydou Xaaji Malick ñu ne ko ban la mu ne alxaaji Malick tàggat ko ba lu yàlla bañ la bañ lu yàlla bëgg la bëgg aba ma aba rahmaanu Cheikh alxaaji Mansour nag dafa wax ci Seydou Xaaji Malick li nga daane léegi wa baadama xibta wajhu dahri munbasitun لنا بفيضك والتيسير اوكي شاحج ما سوداني nit dina ànd ak sëriñ sëriñ bi faatu mu torox yaa ngi dégg ça va nit dina ànd ak ab sëriñ sëriñ bi génn àdduna rek ñëpp xam ne kii sëriñ bee taxoon mbiram di dox waaye Cheikh Alhaaji Mansour nee na moom bi ma àndeeg Seydi Hadji ba Seydi Hadji Malick wan ko ginnaaw ci lay doog a yëg ni ndakate Maodo bokk leen sëriñ si nga xam ni bu ñu demee sa mbir yàqu nee na nit dina ànd ak ab kilifa ba pa kilifa nga faatu mu wëlbati ko di dox ci àdduna pour àdduna teral ko waaye Seex Alxaaji nee na bi ma àndeeg Seydul Xaaji Malick ba Seydul Xaaji Malick wan ma ginnaaw dem nee na au lieu may wër àdduna pour àdduna teral ma waaye noo àdduna moo may wër man Alaaji Mansour pour teral ma yaa ngi dégg nee na bi ma àndeeg Seydul Xaaji Malick ba Seydul Xaaji Malick wan ma ginnaaw mooy li tax waral loolu am moy leg leg nga ànd ak ab serigne serigne bi génn aduna connexion bi dagg laaj ma lutax serigne hadi Touré neena bi mi jàng ilmu nujum ci Seydi Xaaji Malik mu koy dalal neena wer la ko Seydi Xaaji Malik dalal ilmu nujumam nee na bi ko Seydi Xaaji Malik dajale dalale lola neena wer wa jeexul Seydi Hadji ma génn aduna waye sëñ Hadji neena lima yem moy waxtu bo Seydi Hadji malik waxtu wam ma dan jox dars sumu sana jot neena na Hadji Malick day continuer dima jox dars xam lu tax alquran limu leral dafa bari kullu nafsin yi alquran waxul kullu ruhin kullu nafsin la wax an nafsu nak barab xam-xam yépp d'accord nañu barab xikam dani baatu nafs suñu koy wax mooy yàpp ak deret ji moom la ñu gas di suul mais yàlla waxul kullu ruuxin kullu nafsin la wax kon ruux am na ruux yoo xamante ne du ñu dee wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal kon am na ca góor yàlla yi ñoo xamante ni jihaat nañu jihaatu nafs ba yàlla yëg ni ñii dañoo rayante ci seen dund ba am li ñu am mooy ñoom bu ñu faatoo yàlla day jël seen ruux gi bàyyi ko muy boyaluwaat di doxat mission ci beneen yoon loolu la Seex Seydu Xaaji Maalik am baram muqaddimat ibnu Xalduum daf ni nit ñetti gis-gis laa nit ñi am am na ñoo xamante ni lenn dong mooy seen gis-gis mooy gisuñu ku dul yàlla Seydi Hadji Malick ci ñooña la bokk Cheikh Al Hadji Malick pour nga xam dayo bi ko yàlla defal moom Seydou Hadji Malick sëñ Babacar si moo ni woon Seydou Hadji Malick jëmmam mooy jëmmi nit waaye ruuxam ruuxu malaaka la nee na jëmmi Seydou Hadji Malick mooy jëmm joo xamante ni boo ko ni kii nit la waaye ruuxu Seydou Hadji Malick mu ne ruuxu malaaka la mooy lan Seydou Hadji Malick bi yàlla bindee ba bis biñ ko denc ci Tiwaawan Seydou Hadji Malick mosul def yàlla lu ko naqari musul def mom seydou Hadji Malick lo xamne ne accam la motax Cheikh Al Hadji Mansour maamu Serigne bi nettali na nee Cheikh Al Hadji malik moko wax niko Mamadou muniko labbek muniko man gëj mar gëj mar Cheikh Al Hadji Mansour neena mom ci jëmmi bopam dafa noppi di déglu seydou Hadji malik nee na Seydi Hadji Malick ni tekk ba ci yàgg mu ne ko Mamadou mu ne ah mu ne ko sidit yi mar man ba may soxla ndox sidit yooya roof naa ko leeru yàlla ba mu fees moo tax soxlaatuma lu ma naan mooy man dinaa ci yàlla moo tax Cheikh Al Hadji Malick génn na bis moom Seydi Hadji Malick di doxantu ci dakaar dégg armée bi ni ñuy maajee armée française moom Seydi Hadji Malick muy moo leen di séen ñuy maaj di maaj mu laaj Cheikh Al Hadj Mansour ni ko Mamadou ñii ñan la mu ne ko armée française la mu ne ko lu ñuy def nii mu ne ko dañuy maaj mu ne ko ngir lan mu ne ko lu yëwanal seen adduna mu ne ko moo tax boobu heure bii nelawuñu Cheikh Al Hadj Mansour ni ko waaw mu ne ko ma massa ku bëgg lu yëwanal adduna ak àllaaxira ndax talatina nelaw ca la wax yaa rubba laylu bittu saamira an qadin متجاوبا متساجلات الحمام يا روب ليل بين رك Alxaaji Malik Cheikh Alxaaji Malik ni bari na gudd yoo xamante ni man Seydi Xaaji Malik sama mbir lenn dong la mooy di gongante ak signal xam nga signal du nelaw guddi signal du nelaw guddi Seydi Xaaji Malik nee na bari na guddi yoo xamante ni damay gongante ak signal waaye su may gongante ak moom ci guddi gi moom signal day daw waaye xamul fu mu jëm mën naa daw ba oto dal ci kawam mën naa daw ba dal ci nit ñu rey ko waaye man Seydi Hadji Malick ma xam fi ma jëm mooy guddi yooya maa ngi cay toj ay xadara yu bari lool wuti sama boroom ca loola lay nekk mu mutasajilaatil xamaami man alaaji Malick ba ma dégg picc yi di wax li ñuy wax yàlla suñu yuuxoo ma décortiquer comprendre su ma sikkaree turu yàlla ñoom ñu xam comprendre xam nga lu tax yëgoon ni tremblement de terre buy am yàlla mala la ko njëkk wan tremblement de terre bala moo am mala yi ñoo koy njëkk a yëg moo tax dañuy daw lu yàgg noona la mel ci nitu yàlla bu waree fallu ci pays yàlla ba mala yi ñoo koy njëkk a yëg jinne yee koy njëkk a yëg seet Seydi Hadji nekk ci réew mi waaye bi mu nekkee ci réew mi moom alaaji Malick rawul ci réew mi de waaye moo ci dàq jàng yaa ngi mi dégg gis ka dama ne Sey rawul ci réew mi mais moo fi dàq jàng raw ak ak mën a jàng xanaa xamoo ne diw mën nañoo wax ne moo fi raw waaye fekk na am na lum comprendre si Hadji Malick nag bi mu xoolee borom xam-xam yi ni yëg ni ay borom xam-xam lañ moom Alaaji Malick mooy seen borom xam-xam ñi fi raw moo leen raw moo tax kenn xamagul lu mu doon dinaa la ci wax benn wax sëñ Hadi Touré laa lay wax nee na bu ñu dajalee gaa yëpp ñu sukk ci kanamu Alaaji Malick du ñu xool Alaaji Malick dañuy gat dañuy dañuy njàpp seen loos injaala suuhu تراه مطرقين له من المهبات بخ بخ بابن عثمان نينا ان جالسوه بونو توغانتي اك سيدي حاج مالك ولا نيوم كليفا يوي بونو فريكانتي سيدي حاج مالك له تراهم دغالين جس مطرقين ني واي نيات سيني لوس sëñaadi waa ñooñu di njat seen loos lan moo tax ñu njat seen loos mu ne dara waralu ko ngir personnalité alaaji Malick ku bëgg Cheikh Seydi Alaaji Malick illaa yakfiyannaka cheikhun xayrahu abadan ne sëñaadi nee na bi alaaji Malick ñëwagul ku la neex tuddeel ne ab sëriñ la jërëjëf Dieng alaaji sëñ Hady nee na koo dégg ci sëriñ si bañ koy wax sëriñ la boobu alaaji maa ñëwagul wala Maodo ñëw na ba dem. laa yakfiyannaka cheikhun màggal leen sax Seydi El Hadji Malick. laa yakfiyannaka cheikhun. laa yakfiyannaka cheikhun xayra wa abada. nee na sëriñ du mag ci kanamu alaaji Malick. in kaana yumkinu luqiyaaka ibn Usmaan wala koo xamante ni dafa fréquenté alaaji Maalik kooka buñ ko doon woowee sëriñ it bu fréquenté alaaji Maalik ba pare taalibe Maodo lay doon. hal li suyuux. hal li suyuux ndax sëriñ si. wa in jallat maraatibahum Maodo. wa in jallat ndéem kawe na. ndéem bijj na maraatibahum seeni martaba. illa talaamiinu illa qum na Ousmane sama. nee na kuñ cee tudd ca gaaya ak daraja bu mën a yor bu keroog alaaji Malik bu ker bu bis bu jotee mu keroog ak Seydi Haaji Malik du mu jin lu dul nekk taalibi alaaji Malik bari na loo wullee ay téeméer yow moo da joxe de yow ñaata rek nga dindi ci ay junni maye de loolu ñaata yoon nga ko bamtu yow Seydi Hadji Malick defal ko jaamu yàlla yi. bari na boo jokkalee taalibe yi waaye bari na boo leen waaree ñu jëm ci yàlla. kam bari na basarta boo bégalee taalibe yi kam ñaata rek nga def yow El Hadji Malick. kam bari na wala nga ni kam ëpp na wala nga ni kam mënuma koo lim. كبك لمن يان من هادي توري لأن دونغلا مو يو على ما يلنا يلا فايلا الحاج منصور جزاك ربك خيرات مضاعفة نينا يلا يلا فاي سيدي الحاج مالك فاي كو خامتني فلو لاي دون خليفة ببايم جزاك ربك خيرات مضاعفة يلا مي خول الرب باتو رب خملو مي فيري موي اجي راندال رب ورب mooy aji randal xam nga lu mooy lu tax ñu ne mooy aji randal mooy yàlla mooy tuxal doomu aadama mu nekk mëniyu mu randal ko mu nekk lumbu deret mu randal ko mu nekk suuxu yàpp mu randal ko mu def ko ay yax randal ko ba génne ko ci biir yàlla moom nag nga xam ne mooy def loolu lépp yow bàyyi Seydi Hadji Mal yàlla na la yàlla fay ci ñun baarakallahu Moustapha Seydi Hadji Malick yàlla def ko noonu nee naa la Moustapha Seex Xaaji Malick dara du yitteem aljana du yitteem xaj daaw alaaj maay bëgg a dugg aljana du yitteem moom yitteem romb na lool Seex Xaaji Malick bañ a dem safara du yitteem xanaa war nga maa laaj lan mooy yitte alaaj Malick Seydi Xaaji Malick yitteem mooy jàkkaarloo ak yàlla Cheikh Hadji Malick dafa liggéey ba yëg ni yàlla bu ñu dajee yowmal qiyaam moom Maodo yëg na ni yàlla dana ko décorer mu ni yow yàlla man jaamuwuma la pour aljana teg ko nale jaamuwuma la ngir ragal safara tegal nale man alaaji Malick xam lu tax ma lay jaamu mooy dama bëgg bis ba gis di neex ma gis la yow yàlla li ma lay ñaan mooy bis bu ñu taxawee ba bis booba jot ñu ne suñu boroom a nga toog place sàngam ña war a dem gis suñu boroom di départ laa tax ri mën naa ilaahi yow yàlla yàlla booba xañ ma gis na man Seydi Hadj Malick waaye soo ma defalee yitte ba ma jàkkaarloo sa jëmm ji yow yàlla soo ma waree décorer nag pas question ngay jug di ma décorer ñu ne El Hadj Malick waaye yow bëggoo yàlla décorer la mu ne déedéet mbir mi du yàlla décorer ma. xamoo luma bëgg mooy caq bi ma yàlla defalal yow yàlla boo ma ko waree ca takkal wajaal qilaadati jiidi fii asaabii man anzalta ayatin kalimati bo looy alhaj malik ne yow yàlla boo demee ba war maa décorer man Seydi Hadji malik caq bi teg ko ci loxo rasulillahi xam lu tax ma bëgg ko nga teg ko ci loxo rasulillahi mu ne bu nu dajee yowmal qiyam ñëpp taxaw ñëpp za fazain borom njàqare la xayra rasulika sey nee na bu nu dajee ñun ñëpp yowmal qiyaam ñëppay pat pati ba mu des rasulillahi nee na njool màkka kese la yàlla may bu yowmal qiyaamee du jàq du ti moo tax man alaaji Maalik li ma bëgg mooy sama yitte mooy caq bi nga ma war a takkal nga teg ko ci loxo la rasulillahi jaamu yàlla yëpp toog rasulillahi ràngal ma ko Seex Haaji Malick li tax ma ne Maodo dàqut a jàng ci réew mi mais jagle la ko yàlla defal xam nga jagle bi ko waral mooy rasulillahi Seex Haaji Malick moo tax ñu xam rasulillahi Seex Haaji Malick wax na ci rasulillahi man wax la leen baxru basit ci siira alaaji Malick dong moo ci way lu ëpp junni bay moom dong arab yi dàqa jàng nga xamni ño ñoo way bañu jël kenn tudde ko amiru shuara koka limi muy way li alaaji ma bin bind ko mustafilun failun mustafilun failun mu dal cheikh xaaji maay dong mo ci def qasida def ci junni way lépp ci bahru bi mu jëñ ko rasulillahi xam lu tax mu jëñ ko rasulillah mooy njol màkka ku dul moom yàlla faalewu la dégg mu sawa koo fii tagg ak daraja bu ko yàlla jox alaaji Maalik nee na yëg naa ne kooka darajaam bu yowmal qiyaama mu réer ko kenn moo fay taxaw mooy rasulillahi yonent bi ak aadama moom moom ak aadama sayduna muhammad moom ak aadama yonent bi gën yaxya zulkif li yonent bee ko gën yonent yàlla muhammad moo gën yonent yàlla saalix moo gën yonent yàlla ayuba moo gën yonent yàlla aysa moo gën yonent yàlla muusa cent vingt quatre mille prophètes yi bu ñu dajee yowmal qiyaam kenn du dekki wala ku dekki yaa ngi jàq bi ruux biin wa rëhbati alaaj nee bu ñu dajee yowmal qiyaam ku dekk da nga am tiitaanga làmmañ wala tiitaanga xol kenn dong mooy dekk ànd ak sang froid dox wuti yàlla yàlla ne ko bul julli bul woor laajal ma jox la nga dugal gaa yi aljana bu ñu dekkee yowmal qiyaam laa wax bu ñu dekkee yowmal qiyaam ñéppay tiit saydatuna Aïcha nee na laaj naa rasulillahi ni ko ndax yowmal qiyaam bu ñu bu ñu dekkee nee na mbalaan yi yi nu mbalaanoo woon rot ndax nit ñi dinañ gis awray ku nekk nee na yonent bi ni ko Aïcha mu ne ah mu ne ko yowmal qiyaam bu nu dajee nit ñi danañu tiit tiitaay woo xam danañu ñaq ba ñaq wi di gis ngay gis muy mëdd nit ba nit ki dootu ko séen muy yuuxu naan yàlla yóbbu ma sabara nee na tàngaay woowa kenn dong dong mooy génn bis booba ñëpp nekk ci ker taxallabta fi l aslaabi min sulbi sajidin ila sajidin ma dala majjuka rasiya kooku mooy rasulillahi aatuhu xalqa aadama wa maarifata siisa wa sajaata nuuxan wa qullata ibrahima iclam annahu rasulu rabu alalamina wa xaayidi alxorri almuhajjalina wa sayidu jamici alambiyai walmursalina walladi ursila kaafatan ila alxalqi ajmain kama qala subhanahu wa taala fi kitabin mubini ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul رسول الله وخاتم النبي كوكا موي صاحب الغود المورودي والمقام المحمودي ينت الله محمد بيوم القيامه سودكول نيب ين سي ناج يا رسول الله اعلم الله عليه وسلم كفك بيلن دفندي اعلم واو واو واو كي ان رسول رب العالمين waaw kay taxawal si. non dañ dañ dafa am lool nag dafa am lu ma dab dafa am lu ma dab xanaa nga wax ñaari baat ma firi ko te wax li may wax daaneel. nee na xam ba xam jee xam rasulullah ci dàq. anna rasul rabbul alamin bi ñu dajalee yónent yépp moom la ci yàlla yónni. nee na maa ngi leen di yëgal ni. kii moo ñu wommat jëmenu ci weex weex ba jëm aljanna. sayyidul jamii al anbiyaay mboolem yonent yi bi leen dajalee rasulillahi mooy seen sang wal mursalin trois cent treize ya ñu segg ñooña rasulillahi mooy seen sang rawfun bil muminin moo ñu xoole ñeewante moom rasulillahi shafiun bil muslimin ku bàkkaaru yowmal qiyaam te bëgg rasulillahi njool màkk dana la ramm dugal aljana yàlla yónni na rasulullah yónni gu ma sëkk ci mboolem mbindeef yi naka la waxee moom yàlla yàlla tudd na ak sellam ci téereem bu biir bu leer bi sëriñ taxawal ba beneen yoon ah maa ngi daaneel sama kan sargal gi nag sargal gi